yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa يا ربي بالمصطفى المختار من مدر safi ummatihi fil badwi wal Ahad Mbacké Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi ngi gën àdduna ci dëkk bu sell bii di Buqaatul Mubaraka ñu gën koo xam ci njaareem ci atum Balsasin ca weeru Zawal yemook 1914 ci ñaari waajur yu sell yu di tànneef di Seyxuna si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ak soxna Mariama Jaxate bi mu gënee àdduna nag Serigne Touba Xaadimu Rasul dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar te ku man tur wi doo dem sawara ku nekk na naan abdul am na ñu naan ko sax baylaat ñàkki caaxaan mu nekkoon nag ku teel a wat alxuraan loolu sëriñ Amsatu Jaxate nijaayam moo ko jàngal alxuraanu karim mook sëriñ Saalihu Mbàkke ak sëriñ Abdou Samad ak sëriñ Sohibu waaye tam sëriñ Amsatu Jaxate jox na leen ku ñuy wax sëriñ Alassane Jaxate ngir mu jàngal leen sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ci wàllug liggéeyam def na commerce ngir wane ne nit dafa war dundee lu leew daana bay bañ daan ko tuddee baykat bi doonoon ñetteelu xalifam waaye tam defoon boppam taalu bépp Serigne Touba xaadimu rasul doonoon ku daan xeex biddaa ak lépp lu bon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké lépp luñ war a xam ci xam-xam jàngoon na ko laata muy toog ci xilaafa yi bi mu toogee xalifa nag indi na ay coppite yu baree bare ci yoonu murit bokk na ci moo yokk jumaay Touba moo fi def bibliothèque bi moo fi def résidence ngir dalukaayu gani Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul yi li ëpp ci forage yeesalaat marché Ocass yokk courant bi yaatalaat mbedd yi moo fi def université baylaat ngir nit ñi di fi sàkku see xam-xam dem gi nekk ci jumaay Touba dajale woon na fi lu ëpp ñaar téeméeri nit bis bu jot ci ay fuqara ak i masaakin ngir di leen dundal moo fi indi gendarmerie bi ngir dindi fi lépp lu bon te daana wax ne lii may tere sama bakkan laa ci garanté ku ko nangu te bàyyi ñi ma bokkal Serigne Touba Xaadimu Rasul nag seen bakkan laa ci garanté Serigne Abdoul Ahad Mbacké nag jaayoon ak njuréelam ci ku tedd tedd ki Serigne Touba Xadimu Rasul euh, jëndee ko ak taalube loole nag tax na ba bi mu jubee addi Serigne Touba Xadimu Rasul dundoon di juróom-ñaar at ak juróom dafa wax ne maa ngi jub addi ku tedd ki dundoon te romb ko du ay teggin ci man moo tax bi mu amee juróom-ñaar fukki at ak juróom yi Serigne Touba dundoon la wuy ji boroomam mu yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 1989 Serigne Abdoul Ahad Mbacké yal na suñu boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem لو أنت ما والتجد بسفي والدرير وذل دائما بتسليم عليه بمن لو أنت ما والتجد بسفي والدرير يا مالك الملك يا من جاء ردا يا مالك الملك يا من جل عن خاد ارحم جميع الورى